nguur dañ koo caaxaane nguur dafa waroon nekk l'expansion économique de la ville de Dakar te nekk ko Mbour war nekk foo xamante ne fii la ñuy développer le tourisme mu nekk une zone visitée partout dans l'Afrique dans le monde entier mais defuñu ko anay gone Mbour bis bu ñu falo faloo inchallah ñu am programme de réforme foncière bu am solo waxuma la Ndingler ak Djilakh kese mais fépp fu am litige foncier au Sénégal dinañ ko lijjanti incha allah. nit da ngay am njëriñ dama bëgg a xam Diomaye Faye basiiru Diomaye Faye miy taxaw di wax ci man di wax ci ñun xanaa dafa amul programme. benn sujet rek la mën muy sujet Ndingler bëgg nañu xam benn affaire maa ngi leen koy laaj yéen waa Ndingler yéen waa Ndiaga Niaw ban njëriñ wala ban emploi la leen fa créer démb balaa tey. yow sa gox bi nga dëkk man maa la fa ëpp njëriñ garab sampoo ko fa